بسم الله يكفيني أدار يا الله صلي بقاء أبي برفيق يا الله sant yàlla suñ borom di julli ci Seydina Muhammad di sant sëñ Tuubaa di ñaanal sëñ Muntaxa yàgg fi te wér di jaar lu bëri sëñ basiru mii ñu dalal fii Mbàkke di la féddaliwaat suñ kóllëre di ñëw di ziar di santaat bu baax ci dalal bi ñu dalal ànd ak ñama bokkal liggéey bi Ndakaaru mu bari bëggoon nañ ñëw waaye xat-xat yi tax ñu nee na ñii rek déplacé wu ci ci sa ndimbal ak sa mbaax ñu ñëw fi ren euh, ci niñ ko doon defee daaw indi fi ndox ci lu toll ci dix mille cinq cent et quelques ay lave-mains six cent bouteilles gel ay ay gobelets cinquante masques. Euh, ak benn stand 27 mètres carrés bu ñu jagleel fële kër ga boo xamante ne am juróomi médecin danañ fa nekk ci giiru ñeenti fan ak ñaari infirmier ak juróom fukki moustiquaire imprégné pour paludisme bi ak ay thermoflage fukk yi nga xam ne dina jël température yu nit ñi ay test paludisme ñaar ak ay garab yoo xamante ne nit ñi dinañ koy faral di jëfandikoo ci jamono yu mel nii ak ay masque chirurgical yu nit ñi mën a utiliser lu toll ci deux mille cinq cent masques kon ñi ko yor ñoom madame Tall ñi toog ak ñoom Fanta euh, xam naa ne à partir de dimanche seen équipe yi dinañ fi dinañ fi taxaw maanaam ci ci liggéey bu am solo boobu nga ñu sant ci ngir bëgguñoo ñoo dimbali te ñu bëgg ci lool it ndaxte nuñ ko waxee sëñ moom ku mu ku mu ku loo liggéeyloo rek namu na laa fay te boo ñu sante lu noonu. te ñu xam ne bokk nañ ci ñi gën a néew ñu la ko mën a defal ci ñu gën a ñàkk solo mu ñu ko mën defal bëgg ñoo dimbali la rek Mbàkke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla yàggal taxawaay bi yàlla guddal say fan yokkal say cër euh, sa wér euh, nga mën a yeggali liggéey bi mën ñoo taxawu saayar ak baatin comme ni nga ko yàgg a defee sant nañ la bu baax Mbàkke jërë ngeen jëf. yaag délégation bi nga àndal di waa Transwil sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax nee na di leen sant te di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay bu rafet ak seen pësteef ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak noonu di ci liggéeyal sëriñ Touba nee na muy liggéey bu ràññ ko nag nee na diiru ba mu la xamee ba nëga ni nee na booleeg yàlla moo am seen diggante ndax diggante sa waajur ak sëñ Abdou Khadir ak cofeel gi nga am ci moom saa yu xëyee day gis muy gën di yokk kon ñi ngi lay sant bu baax di la xamal ne téyel nañ la lépp nag ñi ngi ñaanit Serigne Touba mu nangul na ko jëf yu bari yi nga jëf lépp yàlla nañ ko yàlla nangu ndax la nga jëfoon daaw doyoon na sëkk waaye li nga jëfaat ren ëppaat na ko kon nag dañ lay bàyyeeg ki tax ngay jëf te moom Serigne Touba day ñemewut bor daa am pay te ku ko liggéeyal rek dana la ci faye loo xam ne ci àdduna ak alaaxira dootoo ko réccu kon ñu ngi lay sant bu baax di ñaan nga yàgg fee ñëw te liggéey bi gën a barkeel te foo toll ren rek bu déwénee nga weesu ko yaa ngi ñu ko àndal ñëpp jërë ngeen jëf. bismillahi fiini agara ya allah sali baqa abi bi fiqa ya allah